jii boo demee ca barab ba la fa nga xam ne moom moo fa nekk ci ay garab filao daanaka lu tuuti la la fa nekk sax commencé na départ mm-hmm. bareetul moo tax boo fa taxawee Ablaye mm-hmm. mu ngi mel ni nga taxaw géej di xool fu sa bët yem man bu ma ñëwee taxaw dama ne xanaa fii géej la ñu ma du géej suuf la maanaam la fa nekkoon ci gàncax yëpp daaneel nañ ko la fa nekkoon ci zircon yëpp récupéré nañ ko léegi boo fa taxawee suuf si dafay melax day melax waay dafay melax mm-hmm. mu wóor la suuf si fi mu toll nii gàncax mënut faa sax loolu nag erreur la boo xam ne état bi da def parce que naka nga mën a jëlee ay nit ñuy exploiter si suuf te suuf sañ doon exploiter suuf la woon soo xam ne nii. béykat yi dañ ci doon gën gis seen bopp. mais tey jii dem nañ ba finalement suuf soosu la ñoom béykat yi mëntuñ ko jëfandikoo. Mm, mm, mm. càmm mekk mbéy nii moom moo nekk di menacer waa Lompul. Lompul waaye. Mm-hmm. te loolu dafa bokk ci loo xam ne comme ni ko Omar Koy waxee waruñoo yem kese ci. Euh, environnement parce que thème la. mais dafa mm-hmm. war a doon loo xam ne dañ kenn ku ne joxe ci xalaat su ko defee buñ mu bañ yem ci kat agriculture mais jëm si ay mhm. solution te environnement bokk na ci li ñongal koomu réew bu fekkee mën nga jël Ba parce que mu ngi wane wu Alassane ñu jël ko wala Mamadou Matar jëlaguñ ko ma Matar moom ne woon na bokk waaw ah, ci kanam département bu Mbacké mhm. euh, ku bees lañ fi indi ah waaw waaw ah, ne woon na mu ngi doon vérifier xool mais xam naa ne dem information bi rek mhm. donc c'est parce que xam naa euh, bu fekkente ne oh, Aliou ah, euh, Alassane Ba ca ca Kaolack suñu mbokk Saloum yi foofee ca 101 point 4 Walf FM euh, édition spéciale ñu jagleel ko 4 avril amal wërngël ci gox yi ak suñu naataango yi ñu fi jot teewal Seydina Omar Ba fu ñuy dem. kaw ah Alassane Ba. kaw ah, maa ngi lay nuyu alo Alassane alo Alassane. waaw maa ngi lay fay Seydina. cee sama <laughs> Ba si soo bëreeg maa la mun ma laa jot ah da nga doon nelaw. waaw dégg nelaw ma de. maa noonu la de tey euh, mais mais mais mais euh, balaa balaa maa ñëw ci défilé mais bëgg naa xam bon climat bi foofu. parce que hmm. xam naa ne fu bi tàng kaw la moom tàng. mais xam nga xam nga tàng dëgg dëgg. Hmm. xam nga naaj dëgg dëgg dëgg. Hmm. waaw moo fi am. masa masa masa masa masa masa. yéen moom wax dëgg yàlla koor gi moom yéen rek yéen a war a yéen a war am promotion ah mais <laughs> temps yi daal moom xam naa ne moom féex mi war na war na di ñëw kaw la. <laughs> waaw léegi di ñëw ci défilé bi euh, ndax commencé nañu. waaw commencé nañ euh, commencé nañ boobu ak léegi mu toll ci euh, waxtu wala quarante minutes ñi leen nag nga xam ne mooy civil yi lañ ko tàmbalee civil yi nag ren ji Seydina ñu gis ci nombre bu impressionnant de civil lu tolloog quatre mille. Euh, bu tegal maanaam ñeenti junni ak bu tegal civil ñoom ñoo défilé tey jii file ci Kaolack ci biir nag di nga gis euh, nekk ci société bi yëpp maanaam li ci demee ni école yi centre de formation yi waaye tamit ñi nga xamante ni ñoo di ndongo daara yi sax bokk nañ ci ñi nga xamante ni ñoo défilé tey ji fii ci euh, Kaolack beneen fait marquant bi moom mooy euh, xam nga ni Kaolack d'habitude depuis euh, ba ñu ràññee Kaolack ba tey fi ñu doon défilé mooy ca buntu ex gouvernance bu Kaolack ci wëtu mairie bi côté central mooy avenue Diogaye Basile Senghor foofu lañ doon amalee li nga xamante ni rek moom moo di défilé bi ci lu bëri bëri nga xamante rek moom lay ko fi fekkee waaye nag depuis daaw dañ ko délocaliser maanaam dañ ko indi ci fi raay bi jaaroon dem ba gaar ba dem ba Medina baay bi raay bi jaaroon diggante Kaolack ak euh, ngir gi néew maanaam ci wàllu boobu nag euh, la ñu jël jamono ji nag raay nekkatu fi nag di fàtt ko ndax défilé ci raay day métti ak tali moom moo fi nekk muy euh, xàll yu jógee cœur de ville jëm euh, directement Médina Baye Niass foofu nag la ñu amalee défilé bi jamono ji nag may addu défilé motorisé bi tamit amal nañ ko ñu ne di euh, militaires yi ñëw nañu wane oto yi xarala yi nga xamante ni euh, ñoom la ñu yore ci la ñu nekk oto yooyee tamit euh, jot nañu romb li ñuy xaar nag jamono ji mooy wéy takk der yi ñoom tamit amal seen défilé sànq rek ba ñuy tàmbali ci jokkoo bi gis nga rek mooy la musique avec la police ñoom ñoo noonu rek ngir dem jëli ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di nga xamante ni ñoom tamit ñoom ñooy amal seen match mun a yegg si romb tribune officielle yi nga xamante ni vraiment euh, gouverneur euh, ñu ko fi euh, seen waaye lépp luy autorité militaire gendarmerie policière ak autorité municipale yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci diwaanu Kaolack di wax nag défilé bi tam yemul rek Kaolack ren yi ndaxte xam nga ni zone euh, militaire euh, bu euh, numéro trois bi nga xamante ne moo nekk fii au Kaolack dafa dafa ëmb ñetti gox muy Fatick muy Kaolack muy Kaffrine mais ci biir Kaolack sax am na yenn commune yi département bi nga xamante ne tey ren bi yónnee nañ fa ay détachement bi yoo xamante ne ay militaire la ngir ñu défilé ndax ñooñu tam yàgg nañ ko être di amal défilé mais défilé civil rek lañ doon gis daanuñ gis ay wéy takku der ñëw défilé si boobu waaye ren yi def nañ du ñu mel rek ngir Euh, Seydina ba tey bu ñu ñëwaatee ci fête bi nag yaakaar naa ni sénégalais yi bëri yaakaar ne fête bi euh, wéy takku der yi ñoo ko moom alors ko du wéy takku der yi sénégalais yëpp ñoom ñoo ci euh, bokk yem mais nag li koy taaral li koy rafetal moom moo ci delloowaale jukkal ñi nga xamante ni ñoom ñoo di wéy takku der yi xam ne saa su ne ñu ngi wétt suñu kaaraange moo xam ci biir dëkk yi waaye ci frontières yi nga xamante ni mooy réew euh, yu ñuy doon doon fu mu doon nii nag euh, militaires yi ñu ngi ñu ngi waaj a ñëw wala wéy takk leer yi ñu ngi leen di seen noonu ñuy ñëw. avec. Euh, Alassane armée autant pour moi du police mais armée moom moo yabal musique am. allo Alassane rek ñu ñëw assuré kii ñu def ñu waxtaan ñu waxtaan tuuti rek balaa daanaka waxtuwaay ñuy dab euh, parce que xam nga tey ji aussi maa ngi koy fàttali sànq Omar Kéré di ko fàttali Doudou caan tey ji euh, environnement maanaam mooy thème bi nga xam ne jàpp fas ne koy fësal ci bés bi euh, te ñu gis ne ne Kaolack moom problème mu environnement dafa posé honnêtement bu ñu waxante dëgg. Mhm. parce que Kaolack dëkk la boo xam ne nii la fa nekk ci mbalit dafa jéggi dayoo. deuxième yi suuf si daanaka xorom la. kon cest à que tey jii bu ñu naan environnement thème bi dafa mel ne que Kaolack lañ ko Kaolack Kaolack lañ ko jagleel. Kaolack lañ ko jagleel. moom day euh, Kaolack am na ci wàll bu bëri ndax tey jii euh, euh, am na solo ci côté salubrité bi ngay wax moom mooy mbalit bi ñu fi ràññee woon na yu waaye tam xorom si nga xamante ni am na kër yu bëri ah, seen i mur daanaka xorom si nangu na ko mënatoo def peinture mënatoo def li nga xamante ni moo di ciment ah, pour mu dëgër ndaxte xorom si yàgg-yàgg da koy lekk lépp ruus daan ko suuf bu ñuy wax ci environnement yaakaar naa ne loolu aussi ah, Kaolack am na ci solo muy thème bi ñuy développé mais leneen li ñu seetlu ci wàllu environnement xam nga alam bi la ak li mu ëmb mm-hmm. mooy Kaolack am na lu am na Saalum léegi Sine Saalum tamit xam nga ni foofu dafa nekk euh, euh, gox boo xamante ni dañoo nekk ci euh, ci ci ndox. waaye aussi bëri na ay ngir euh, jógee ci ndox lu mel ni ay euh, jën lu mel ni euh, tamit mangoro bi nga xamante ni day contribuer ci écosystème bi yaakaar naa ni loolu tamit ñuy koy wëttoo am na solo lool lool lool moo tax thème bi ñëw na te ko soxlaa mais thème bi bu mu yem ci ay explication rek mais nag na ànd ak ay jëf ngir rek nit ñi mën ci profiter encore une fois Seydina Omar Ba l'exposition de l'école ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg bu baax a baax baax a baax. waaw ma ne loolu la leneen nag loo xam ne nemmeeku nañ ko fii depuis quelques années euh, quand même euh, ci Kaolack mooy euh, défilé bi dafa am benn membre du jury yu toog di xool kan moo dàqale ci défilé yi moo xam ci soldat yi moo xam ci civil bi ak ci ñeneen ñi tamit ngir rek bu jeexee ñu mun leen décerner li nga xamante ni moo di prix ku dàqale défilé te loolu yaakaar naa ni bokk na ci li tax nit ñi gën a delloo buum te mooy mooy ba gën a mel nañu meloon ca défilé ci ay atam nga xam ne bu ñu wootee dëkk bi yëpp ñooy génn dajal si fañ koy euh, amalee waaye gis nañ ni même bu fekkente ni mbooloo mi génn na Kaolack ay at ci gannaaw mbooloo mu ëpp daan na ñëw tamit wuy si ñi nga xamante ni rek euh, moom moo di wala fête si fête nationale bi ak euh, ñëpp. est-ce que est-ce que nekkul si koor gi bo koor gi moo wàññi moo wàññi nit ñi. Ah? mais est-ce que nekk koor koor gi aussi joué wu ci rôle. waaw <laughs> naaj bu tàng bi xam nga xam nga koor koor rek dafa féeti. Mhm. nga nga dolli naaj dolli ci maaj. xam nga loolu yëpp day indi ay jafe-jafe. Mhm, mhm, maaj lu rafet. day xaw a jafe. non non loxo yeeg tànk yi ni mu àndee li moom euh, vraiment ci télévision rek laa ko doon gis. militaire yi jamono ji ñoom tamit euh, ñoom ñooy romb tribune officielle bi mhm. xam nga ni Kaolack tamit euh, dafa am taarix ci wàllu militaire na xam ne camp Sémou Djimit bu Kaolack gi la rek bokk na ci camp gën a mag euh, ci Sénégal am na fi li nga xamante ni moo di marine bi am na fi ndax maa ngi lay wax léegi île île du Saloum waaye tamit lii di aérien bi tamit nemmeeku nañ ko ci Kaolack base aérienne ndaxte xam nga ni euh, aéroport wala aérodrome bu Kaolack koy euh, defaraat te yeggagu te militaire lañ ko dénk euh, kon tey jii mun nañ wax boo jaaree ci yeneen corps paramilitaire yëpp waaye militaire armée de terre de l'air et de mer yëpp ñu ngi ci diwaanu Kaolack ak li ko wër def na ci sapeur yi ñooy romb moo tax ngay dégg tax yi sapeur yi ñu ngi ñu ngi màcc Robert xam nga ñoom ñëpp nag ay soldats lañ moo gën a neex Euh, ndeysaan rek euh, maaj bi rafet tànk yi ànd loxo yi ànd niñ koy euh, balancé jamono ji may wax nag. Mhm. kii la nga xamante ni rek moom moo di colonel Seydou Keita. muy acte opérationnel bu zone mu ngi taxawoon mu ngi may xool waaye nag mu ngi mu ngi reer mi ngi kontaan ndax ni gars yi di maajee. waaye fi ñu nekkee xel maa ngi ci suuf waaye lépp luy wàllu sécurité moom moo ko yore xam naa ni euh, bu tànk défilé bi jeex ba ñëpp ñibbi ci jàmm ak moom du euh, mën a kontaan comme ni mu ko bëggee Seydina. Euh, daawoon nañu gis itamit ca Saloum ca Kaolack ñoom Omar Thiam ñoom Jambougoum ndax aspect culturel bi dañ ko fa génne. waaw aspect culturel bi xam nga xam na ay majorité ak yooyu mooy défilé civil bi. Mm-hmm. boobu dama dama dama ko jàllale noonu. mais lu mel ni euh, chorégraphie rafet xale yi jot nañ ko fi fekk euh, romb daal di dem Omar Diab jamono ji maa ngi ko seen ci benn rajo man ngi koy euh, direct xam nga personne ressource lañ ñooñu dañoo fekk histoire dañoo xam jamono dañoo xam lu bari moo tax rajo yi dañ koy yéem a ko ñëw pour a am ay kàddu yu wóor waaye moom benn rajo rek la def ci rajo télévision. rajo Walfadjri ndax rajo bi mu amee benn suuf bu ndaw sa mu woo mu ne ma lu xew ci rajo bi kon mhm. euh, par la même tamit euh, ñu ngi koy jaajëfal euh, di ko sant bu baax di ko gërëm ci bëgg gi mu bëgg Walfadjri te nëbbu ci dara. jërëjëf. jërëjëf Alassane Ba kontaan nañu lool ca Saloum nga nuyu ñu waa Kaolack daañu ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo Kaolack googe ñu ngi défilé ci jamono ji. Euh, coppeeku ba mooy euh, fañ ko daan defee dañ ko wutal beneen bërëb bu gën a yaatu mbooloo ma daje fa euh, civil yi ak militaire ya ña ngay défilé ci jamono ji bokk na ci wàllu environnement moom jot na cee waxtaan nga xamante ne Kaolack am na jafe-jafe wàllu googe jëm ci mbalit ma fa ne xas ak itamit suuf soo xamante ne xorom saako bëgg a yàq loolu itamit lu mat a bàyyi xel la ci jamono joo xamante ne feetu indépendance bi loolee la jël ci ponk yi. ñu xool keneen bu ñu munee am euh, xëy na Thierno Daaf Thiam Ndour wala ñoo xool parce que. ma nga woon Dakar ah nga woon ci waaw.